kon yow su ma la déggee bu baax li nga wax mooy maanaam yow tey yow loo am fas yéene koo bokk ak say mbokk daal yow. te nañ ne mbokk alal lu yàgg. mbokk ak lan samay mbokk. <laughs> sa alal sama alal. tu as bokk ak samay mbokk. ndimbal. ndimbal pour la. yërmande non man yërëwuma kenn. <laughs> Modou yaa ngi préparé pour boo fi bàyyi ko. <laughs> parce que yow nga xalaat de na ma. bindal teg fii rek joxal buuba. man ma man maa la gën a <laughs> xam naa li ma wax de. man maa la gën a xam àddina gën la xam yàlla. ah waaw kon nag ah. waajal rek. taa rien naa ma conseil ci loolu. Hmm. kon non conseil bu ma la dama man xam naa say mbokk. dama ni de toute façon boo ko mën a nekk naa say mbokk. dama ni la. Fara xam naa la de. dama ni la. ñooñu ngay wax mbokk man aw ma mbokk. am nga aw ma mbokk. <laughs> cawaat du sa kër maam mais yow yow gëmal sa gëm nga bàyyi ma suma gëm nga. mais cawaat sa kër maam la non. man yi c'est a mon problème. Pendo yow gëmal sa gëm. gëmal sa gëm wax na ko wax na ko de. waaw waaw jaajëf rek de ni nga koy waxee dama métti trop. moo wax leen seen gëm-gëm ak li ngeen dund. da xam lan laa dund. dëgg la da nga xam fan laa jaar. da xam kan ku nekk ak dundam. mooy li ma mi doon wax léegi nii. Mm-hmm. ku nekk ak sa jaar jaar te xëy na loolu dafay dem ba répercuté ci say doom. tëddee moo xam ay màtti lalam. wallaahi man amul benn jour mu ne. man lu may xañ lu may ñu ma ñàkk moo ko ma ko xañ. njëlbeen waxam. Mm-hmm. te capp ci émission ba. nee moom lu mu ñàkk. dama ne li ma ay ca nañ ko bàyyi mu leeral. dama ne li ma gën a metti. li ma gën a metti waaw mbokk moo ko teg. Mm-hmm. loolu la wax waaw moo ko teg. pour ne pas wala ma kenn di yaakaar ni keneen laay wax mhm. sama doom bi ma jur loolu la mhm. je suis honnête damay wax dëgg tey jii su ma amee ki ma gën a jege muy sama dret li ma gën a metti ki ma ko njëkk a def sama àddina ki ma ko gën a def sama man sama doom la am na ñoo xam ni maa ngi doon waxtaan ak tey kenn te xamul woon ni thème bi tey la mu ne li ko gën a metti ci àddina bàyyam moo ko def. waaw est-ce que. mais arrêtez il faut qu'on soit honnête bàyyi leen làqatu yi. ñaata ji part de père de famille ñoo fi biiral seen doom. ay waaw. mu biiral benn la. Ah, man woddu euh, ay tànk la wala ay yaram bañ koy woddu. quand c'est ah, ci dégg sax ëmbal moo gën a ñaaw. ñaar ñii laa bëgg man. gis nañ tamit ay kilifa yoo xam ne seen seen ay jabaru doom ak seen xam nga lan moo am seen àdduna bi ku yebu nga adapté wu ci loolu. adapté wu ci. chacun pour soi Dieu pour tous moo fi nekk. kenn koo gis du jël mukk doomu jàmbur def ko comme doomam amatul. ah Mourguet lu ku ndox doon taa boo demee. dama ni la nañu dem. àddinaa ñu dem ñu doxal te day wàññeeku ndànk-ndànk. léegi nag. dama ne. li xotteeku. dañ koy dañ koy bàyyi mu xotteeku. mais dañu am jot kenn amatul jot ñoom. kan moo am jot ñoom prêt kenn ñëwatul. mais mais mais mais jënd lu ñaw boobu ma ne mais ñaw boobu. ma ne ñii kenn yaa awa ñaw boobu du ma du ma bàyyi mu jàll. parce que dafa am fu ñëw